ay caawri caawri nag ñu ngi koy li ah toj na benn nen ama neex toj na benn nen sànni na benn caawri waaw guy gee ngi jat ndeysaan lu tax nga di ko bàyyi muy jat guy gi soo ko bàyyee mu jat bu soobee yàlla da lay jàpp waaw kumba saari bu góor lay jat foofu arbitre delloosi su leen ci géew bi waaw ndeysaan bésu Thierno Lo Thierno Lo nag ndeysaan di turandoo maam Thierno bi nga xam ne bi Serigne Bambay dem ci géej gi moom la bàyyee woon daara jeeg njaboot te dara waaw arbitre suble na ama neex kabar na ko cokkastiku na ñoom ñaar cokkastiku nañu loolu ñu def mooy cokkastiku ku ne tëb laal say tànk waaw mu ngi dóor mankaana yi wiic waaw loolu dafa mel ni cukkeer buy gas moom la ama neex def mu ngi leewaatoo ñoom ñaar ama neex moon woon ginnaaw takk caawri boobu nga xam ne diggante njaaneeg gulum lay jóge ndeysaan loolu ngeen gis mooy caawri diggante njaane lañ koy liggéey gulum gulum la Mor Mati Sarr dëkk Ousmane Sarr Ndiagne la Ibi Thiam dëkk ak muy jéeri ndeysaan Saer Sall nag ak Maram ñoo dëkk fa nga xam ne fii mooy mbëllëxeeg yang-yang ñaari mbër yaa ngi leewaatoo kenn ku ne takk doyal ngay gàllaaj mbër nag lii dafa rafet ci moom dafay xejam ama neex mépp na ama neex mépp na mais demul guy gée ngi ne tekk di ko xool ci biir yi bët ama neex ak guy gi ñu ngi leewaatoo ama neex dóor na waaye guy gi daf ko paare dóor yi dafa tooy daf ko yërndu ama neex loolu moo di neex moom moo nu woon ginnaaw guy gi dafa aj gardam di ko déglu ama neex ak guy gi ama neex ak guy gi arbitre bi nee leen bëri leen xool mu ama neex ak guy gi ama neex song na mais song bi dafa sori guy gi jàpp na ko lii mooy sol daf ko sol guy gi sol na ko waaw ama neex daf ci bëgg a génn fi mu nii guy gi dafa dafa bañ dafa bañ guy gi jàpp guy gi cokkaas na ama neex sukk na waaye sukk boobu dëgg galaat ci dagg na xeexaat nañu amaneex tongaat na guy gi roof na ko ca xabal amaneex sukk na la ilaha illallah oho waaw léegi guy gi jàpp na oho amaneex génnal loxo bi ay waaye amaneex loxo kenn du ko génne ci biir loxo bi nekk na ci biti loolu la loolu guy gi bëggoon waaw lii guy gi def mooy dëgg da ngay ràcc say tànk jàpp comme dëggal nga door a bëre amaneex wàcc na taxabal bi rëcc na taxabal bi amaneex dafa taxabal rëcc na guy gi def ko bëgg a ndax dana am ndax dana am yàlla xam laa ilaha illallah stade Demba Diop a ngi ni teg boo sànnee mbattu mu tag kenn yëngootul ndeysaan ama neex tibb na laa ilaha ama neex tibb na ama neex ah, ama neex teq na ko guy gi bañ na laa ilaha guy gi jël na ko ama neex bañ na ama neex bañ na laa ilaha oho guy gi jàpp na ama neex bañ na guy gi jaxabal na jaxabal na biir guy gi bañ na galaaj gi dagg na ama neex bañ na laa ilaha illallah ah waay ama neex ah guy gi jël na ko ah, attention guy gi def na daa def xojog bën na ti naw ndooy parce que fanaana caareer ah ralenti baa ngoog gis ngeen guy gi dafa ko buddi doon ko ci suuf damaa daanu keroog di reetaan dem ñu ne guy gi daa ñàkk jom man jullit laa dama daan daan ñi ma daan daan mënu ma leen yàlla moo ma may xañ leen kon su ma yàlla xañee may may leen dama koy sant suñu borom ree mais ree ko ree ñàkk jom